ذي العرش العظيم ذي المجد والكرم ذي الطول لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله حصيبا وكفى بالله شهيدا wa kafa billahi aliman wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alxalqi sayidina wa xabibina wa qudwatina wa shafiina wa mawlana wa azimina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabati kiram wa sallama tasliman kasira rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahuma ya muallima ibrahima alimna wa ya mufahima suleyman fahimna allahuma allimna ma yanfauna wanfaana bima allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum bi ixwat alkiram uh, mbokki jullit yi maa ngi ci biir uh, seen mbokk imam Mor Seck moo ñu ñëwaat tey di waxtaan ak yéen ci lislaam te nag yaakaar nag lu xew di jàmbat muy weeru koor wi weer woo xam ni dafa lëmbali àdduna bi yépp amul benn continent ci àdduna buyul buyul buyul buyul koor gi ndax ki ko andi moo nekk un un ndax yàlla ko ne wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi ba naas génnul benn continent ñëpp nit ñëpp la wax mu neeti rahmatan lil alamin nga nekk yërmande clémence pour le monde entier waaw bii gaat bu rëy yàlla jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba noppi tumpoonu nag ne maa leen tumpoo yéen xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox nu ajjuma jox nu tabaski jox nu aj jox nu koor jox nu alquran jox nu liitu xadr jën nag Muhammad na mu woowu bu nga ko toppee nag seen lépp baax na su ngeen toppee Muhammad seen lépp baax na waaye tutiwu tahtadu su ngeen ko toppee yëg seen lépp jubbantiku ngeen baaxee ba faw kon yàlla na nu yàlla may ñu topp Seydina Muhammad sallam bu baax a baax a baax tax kat loolu kat moo daloon sunu kilifa yi fi jóge dañu ko toppoon tànk ci tànk won àdduna gannaaw ba léeg leen yàlla wërsëgal mu ngi feeñ ñoom mosu ñu bëgg àdduna yàlla yàlla moo leen ñoroon ak yorantaam kilifa yooyu nag Sénégal dëgg-dëgg yenn yàlla feeñu leen bu baax a baax a baax a baax a baax ndax ñun dañuy ballar ñi nag béyaatu na de dañuy ballar ñi ballar ñi nag. bu bu bu fëgg dënn kuy balar ñi na nga bàyyi xel ki def sanjaan bi def baxaw bi def bayaat bi bal bal yoo nga ñëw di di di di balar ñi na ko sant rek te te ñaan ko yàlla kon yal na yàlla fayandu leen gën ji fay te seen gannaaw yéen a gën a gën a tax la ñu amoon yaakaar ci lislaam bu yaatu yal na yàlla nga wëleel seen jort ci lislaam bu yaatu ci réew mi kër yëpp jël lislaam néeg yëpp jël lislaam ëtt yëpp jël lislaam xol yëpp jël lislaam kon jàmm dafay am loolu nag ah moo tax yàlla subhaanahu wa ci waxin mu yónnee na loo xam ni bu nu ko defee dañuy am mbégte fii am mbégte xam nu jëm mu jël lu rëy loo xam ni lépp lu waay bëgg sëwe ci àdduna ak àllaxira si la si la ko dëxëñ si la ko dëxëñ mu di koor réussite totale fii si àdduna bi ak alaxira mu ngi si koor waaye xëy na yu tatal boobu nag dafa am ñi mu ko adressé ñi mu ko adressé nag mooy tax muy suñ suñu temu tey bii ma tuddee que l'impact de la foi doole ji nga xam ni moom la gëm yàlla am ci nit wala société wala ci monde bi wala ci ci jur gi walla fépp taxawaay dayoom dayoom dayam foi dayam ngëm yàlla yaakaar naa ni ku wóor di nga xam lan mooy ngëm yàlla ku wóor dëgg di nga xam lan mooy ngëm yàlla kon sunu thème tey mbokk yi nu ngi ko tuddee l'impact de la fois eh, kon ba naa ñu ñëw ci siyaar yi rek nu dugg ci thème bi jeexale ko siyaar yi di sant yàlla nag bu baax nag bu baax baax baax baax baax baax aaya bi nga xam ni moom la ñuy jàng di ko bamtuwaat ci biir génn si nag benn mbir pour wane loolu adressé ko nag benn benn Euh, benn jubluwaay moo di audu billahi min alsheytaan irrajim yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba alladina min qablihim min qablikum laallakum tattaquun laallakum tattaquun mbokk yi ba baamtuwaat aaya bi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala ki man boppam man léppam di di dundal di rey di xañe di joxe di def lu ko neex di guddi di bëccëg ba mu lay sàkk ba mu lay sàkk tàggool kenn danga xëy nekk nit mu tumpole si kaw suuf la fexeel ba suuf defarwaat defarwaat bu wax baax a baax yaay sama agent si kaw suuf bon nit am na cër bu rëy si kaw suuf mu neete ko yéen yéen yéen ñi nga xam ne nekk ngeen si kaw suuf daal ngeen di xool ba gis ne man mii may ki ki ki ñu war a gëm ngeen gëm ndax yi war a gëm du yéex waaye yenn yéen a seet asamaan si ku ko fi teg suuf si ko fi teg géej gi ko fi teg ku saxal garab yi ngelaw li oxygène bi ku fi andi dama leen posé question yi yéen mbokk ak man ak man mi sax maa ngi posé sama bopp kan moo fi andi géej gi kan moo fi andi jéeri ji ak jaww yi oxygène bi miir yi espace bi diggante asamaan ak suuf ku ko man ndax bi yàlla bindee asamaan ak suuf ba léegi gis ngeen aw aw aw aw aw xotte ko ci kaw asamaan ndax ma seen gis asamaan ak suuf di xuloo garab ak suuf du ñu tàggoo mukk ku man loolu ku fi àndi guddi ku fi àndi bëccëg ku man loolu ku fi àndi defar doom muy wax faas yi mu jaar yëpp ba nekk nit nit nit ndox deret deret ndox soox yàpp yépp yëpp yëpp ba mu nekk nit mu génn ko ku man loolu moom rekk ba ko man ba nag tabaraka taala kooku nag moo xamal ne yéen ñi xam ni man la xam ni maa yore mbir yi maa xam nag fi ma koy jaarale nag maa yore mbir yi maay fekk animateur soose ma nekk am yebal Imam Mor Seck naka demal si Aliou Socé mu ñëw nag man nangam nangam mu jox ko ayam faju fekk man mii la nag man mii la waaw <laughs> maa fekk ñaari ñaari xol yu bokk lu ñu gëm te la la la mu soxla man maa ko man maa am maa ngi ko koy teg mu dem jëli ko pour lan ngir ñu xam ni mbir yi maa koy maa ko man la kon nag yàlla moomu mu ne yéen ñi nga xamee ni gëm ngeen yaa ayyuhal lazina aamanu terme bu neex yaa ayyuhaa llaziina aamanu vous qui êtes des croyants yéen ñi nga xam ne yéen a gëm euh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm duñu dañ di ko wax ndax am na ñoo xam ni boo waxee ñetti yoon ñu comprendre ñii ñaar yoon ñu comprendre ñii benn yoon sëkk doy na leen moo tax répétition et pédagogique ni ki fal di waxee loolu mooy xikma xikma c'est la sagesse ndax loo déglu ñetti yoon rek dugg na boo gisee julli juróom yi kenn waru ko fàtte bés bu ne nga def ko juróomi yoon boo ko fàtte da ngaa sàggan te kooku daañu si ñun su ñëwee si beneen beneen phase bokkut ak dama leen waxoon bi passé kon nag yàlla na ne subhanahu wa taala yaa ayyuha alladina amanu ak mbégte yaa ayyuha alladina amanu ak mbégte mel ni sa sa njaboot gi yépp dañu toog nga génn waaye mm. yéen sama njaboot dafa ñe dafa ñeewantel eh yéen sama njaboot yaa ngi leen amul yéen yéen ñi ma gëm dogal naa si yéen faratal naa si yéen koor ci ni nga xam ne ni laa ko joxe woon ñi leen jiitu. bon day su ngeen ko joo jooxee ni ma ko bëggee il est fort possible ngi am di nga am piété te piété nag moo drapeau bi kon loolu yàlla daf koy jagleel les croyants en Dieu et au prophète Muhammad sallallahu alayhi gëm googu nag. yàlla indi nu lu tax lu ko di ko mën a parfaire mooy le mois de ramadan si ngay vérifier sa ngëm nga daan teel a ndékki mu ne na nga ko changé da nga daan guddee reer mu ne na nga ko changé da nga daan naan heure bu la neexee mun ne na nga ko na nga ko changé di daan attaaya mu ne na nga ko changé daan jot soxna yi waxtaan waxtaan wu neex a neex a neex mën na nga ko changé maam si li li nga xam ne dafa daawaroon yow pour yëpp mën na nga changé yëpp ba ci gën a doy rek moo di nga dugg sam néeg Alioune Badara Sow si jóge am jóge xiif dugg ci néeg bi ak ah, bi am na frigidaire am na ndox am na fruits am na légumes lépp loo xam day day bànneexu nit mu ngi si frigidaire bi. te moom rekk nekk ci néeg bi waaye moom yég na ni am na force vitale bu ko xam ne bu ko bu ko jonguru bu ko naa ah, boo gëmee day bul faaleel lii mu ne yàlla yaa ma gën a ndax yaa ma ko jox yaa ma gënal lii yaa ma ko jox bëgg ma war naa naa jéem naa jéem sa sa kéem tolluwaay kattan la yàlla noonu lay def ak jaam nag yéen ñi gëm. su ngeen bëggee gëm gi am perfection ni ngeen sàmm koor gi nag ndax loxo day gëm tànk day gëm bët day gëm gémmiñ day gëm biir day gëm xel day gëm membre di koor yëpp dañuy gëm kon weer yu yàlla andi pour c'est pour que nu nu defaruwaat nu defaruwaat ba mu duggee si làmb bi arène mën a victoire moo tax ma tànnal leen waqul iman l'impact de la foi au sein du mois de Ramadan kon foi nu déglu ngëm googu <coughs> boo demee ci suratul muminuun sourate les croyants nu xool yàlla subhaanahu wa taala ni mu tagge gaañ yi ñi am foi mu ne baada audu billahi min alsheytaani rajim bismillahi irrahmani irrahim qad aflaha almuminuun alladina hum fi salaatihim xaashicuun walladina hum an larwi muridun walladina hum li zakati failuun walladina hum li furujihim xaafizuun illa ala azwajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum gayru malumin mu ne mu continuer ne walladina hum li amaanatihim wa ahdihim raaun walladina hum ala sarawatihim yuxaafizuun ulaayika hum waarisuun alladina yarisuun fi hum fiha allahu akbar mbokk yi aay bii wala saar bii waaye aay bokk na si ñuy gën mën a dimbali ngëm gi koor gi koor gi la si ngay tes testé sa bopp xam sa faafu mu toll bàyyi sa bànneex nga nangu ah yombul de bàyyi sa bànneex nga nangu yombul de yàlla ne dëgg dëgg dëgg dëgg xat aftal mu'minuun dëgg dëgg dëgg dëgg ñi gëm rëcc nañu ñi def morphologie wala logique xam nañ lan mooy place su xat bu nekkee devant un verbe accompli verbe verbe au passé la aflaha dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg bég na rëcc na ñaan al muminuun les croyants waxool waxool ñi am xaalis de waxool ñi am alal de waxool ñi am mbooloo de waxool waxool yooyu yëpp nag baax na boo ko boo boo defee une bonne acquisition yi baax na waaye danga xat aflaxal moom ñun dëgg dëgg dëgg dëgg ñi gëm rëcc nañu mu mel ni dañoo posé question bi yàlla posé question nu nun nooy posé question nu nooy naan waaw waaye ñooy ñooy ñooy ñan waay ñooy ñooy ñan ah ñuy door nañ war na leen xam ndax nu nu bokk si kon nu jëm see nu jëm si nu jëm see bokk yan si yàlla boole mu ne alladina hum fii salaatihim ra xaashiun mooy ñi nga xam ne bu ñuy julli fàtte seen bopp fàtte seen lépp ngir seen ngir seen ragal yàlla boo ne allahu akbar nga fàtte ne ab ministre nga nga fàtte nga président nga nga fàtte nga ambassadeur nga nga fàtte ne imam nga sax en tant que imam yow yow mi jiite nga fàtte ne imam nga nga fàtte ne yaay euh, ki ëpp xaalis si si bi moom tous les titre da ngay fàttali lépp looy fàttali ab jaamu kese nga jaamu kese nga moo tax yeneen alladina hum fii salaati xaashiun mooy ñi nga xam ni bu ñuy julli fàtte seen lépp ngir seen ragal yàlla mu ne déet dama yem foofu de parce que banqal sa baaram mu ne walladina hum anil lahi muridun ak ñi nga xam ni am am caaxaan waxuñu si daara lax wi mu doon da ngay def nag gis nañ ko fekk gisuñu ko am na ñuy nopp romb fa waaye dégguñu ko sax la tal mu nga sa xol ba xol ba moo tul ba dara dootu du dugg mu ne wala dina hum bi zakaat yi faayilul ñetteel mooy ñi nga xam ni ñu ngi taxawee seen asaka asaka bon mbokk yi nu ngi si weeru asaka ku amul asaka sañ nga saraxe waaw ndax lislaam dafa am ñaari catégorie boo mënee dëgg-dëgg na nga dem première catégorie boo mënoon ba dem deuxième catégorie bon yàlla bëgg yàlla bëgg na ñëpp sawee ku amuloo asakaam del sadaxe waaw ndax sarax dina tax baal balaa du wàcc de tey yonent bi ne na ngeen faj faj seen feebar ñi feebar na ngeen leen faj sarax daawu mardaakum bi sadaqa na ngeen faje seen ñi feebar ay sarax kon nu ngi si weeru sarax sarax nag daa bari façon ku nekk la nga am rek nga sa ngir yàlla ñii dañoo mën ay liyaas ñi mën ay chèque ñii mën ay kër ñii mën ay sàkkuy ceeb ñi mën ay tono ñii ñi ñi mën juróomi dërëm ñi mën téeméer ñii mën togg ba togg ba mu neex mu wo mu woote ku nekk ak façon ba nga xam ne moom nga mën sarax sax ngir yàlla waaye nag bu ko demoo jamono boo saraxee demoo rek yàqu na jamono boo saraxee di ko di di di di di ko tëggoo yàqu na yàlla moo ne bu leen yàqat seen sarax ci ci ma ci ci ci tëggu waaw tëggu wala nga tegal teg teg si baat baat bu bu ñagas ah, kii kay mag ki nàngam nangam nangam rek toujours mu saraxu yàq na yàq nga lépp waaw te loolu dafa bari si réew mi nag saraxe ba noppi rek di di di di di kañu yàq na yàq la nga si bopp kon ñetteel mooy ñi génn asaka. mu ne walladina hum li furujihim xaafizuun ak ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax tey seen tubéy ak seen kumbo waaw ah, te koor nag dañ la sant loolu ñett yi ma ñett ñett yi ma jëkki tudd yëpp ngi si koor gi fo fonk julli gi fonk asaka ji tey sa bopp waaye nag loo ko téye téye nag. sa borom kër moo ko moom nag waaye nag moom waaye nag moomu ko bëccëg gi bëccëg gi moomu ko dañ ka dañ ka tere xool rek li la yàlla ne maa la ko may heure bu la neex demal waaye bëccëg bii nag maa maa maa la ko tere ngir lan ngir nga defaru nga defaru yàlla lu mu sant jàmm pour jàmm bi defarul la mu ne ak ñi nga xam ne seen colère ñu ngi koy sàmm seen pacte ñu ngi koy ñu ngi koy sàmm mu ne walladina hum li amaanatihim wa ahdihim raawun ñi nga xam ne seen kóllëre ak seen pacte ñu koy sàmm ah mbokk yi aaya bii day mu xool réew mi nu mu doxe doxale nu muy doxe ak waxu yàlla ji ñu ngi sàmm seen kóllëre ak seen engagement ak seen pacte ñu ngi koy sàmm kon nag loolu ji bu koor gi ñëwee da ngay defar waat koor gi c'est c'est le médecin international le, le médecin universel daay ñëw pour tout les maladies mu yëpp fa faju ab docteur nag boo ko nëbbee sa feebar doo wér <laughs> ab docteur soo ko nëbbee sa feebar doo wér kon ku ku ku ku waay fu waay ne feebar ba nga am na di di di dégg docteur bi kon loolu mu continué di wallazina hum ala salaatihim yuhaafizuun fële dene ñi nga xam bu ñuy julli bu ñuy julli fàtte seen bopp fii nag fii mu ne bu ñuy julli dañ dañ si yooyu du du ko def julli occasion <laughs> ndax julli moo ko yow ba ba ñu day suul julli moo yow ba ngay ba ñu day suul askan dina la wàcc koor dina la wàcc aj màkk la wàcc ba mu des nag julli julli du la wàcc bay ba sa sa mu jëg julli sa sa lay jullee kon julli du la wàcc kon yàlla wax na ne bon moom yi nii les croyants ñun rëcc rëcc nañu tudd fi tudd fi lenn borom ndomb tànk tudd fi lenn borom portefeuille tudd fi lenn borom mbooloo yooyu yëpp nag pour xamal ne mbir mi benn ngéen ki am mbooloo ak ki amul mbooloo benn lañu ki am ak ki amul benn lañu ki ak ki benn lañu na ku nekk di taxawu sa moroom la nga am la nga am nga taxaw ka amul loolu nag koor gi si nga xëti féew defar defar waat loolu moo tax ne bi gën a ne nag ci ay yi nga xam ne wax naa ko bii mu ngi nekk sourate Nuur sourate la la lumière si nga xamee impact de la foi yàlla ne aoudu billahi min ashtan rajim allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min zulumat ila nuur allahu akbar yàlla ne man may ñi ànd ak ñi gëm bu leen nee bu leen nee ngeen compagnon bu leen nee ngeen camarade ci langue la langage moderne bu leen nee ngeen euh, euh, soutien bu euh, protecteur moom daal du du du tàggoo ak yow mukk mooy lii li si na amanu man maay méngoog ñi nga xamee ni gëm nañu mel na yàlla ñi nga ànd la te ñu gëm loolu leen defal mun na yuxrijuhum min zulumati ila nuur dama leen di génne ci ténèbre ci lëndëm lëndëm yi yóbbu ci leer ah Alioune Badara loolu nee na de génne la si lëndëm lëndëm yóbbu si leer si yéen si mbir yëpp baax te nun fi nu ne bés bu ñu xëyee ñëpp ngi tawat ñëpp ngi jooy wala lu wala boog lu bare ngi jooy lu lan. ñàkk aajo yi faju bon ana ngëm yàlla na ñi gëm maa leen di génne ci lëndëm lëndëm yi yóbbu leen ci ay leer leer ñu laaj bon nag gaawe nu wax lan lan lan lan lan mooy lëndëm lëndëm yi ndax nu mën a mun ko moytu te yooyu lëndëm lëndëm nag ci koor gi si ngay mën a profité man si man si man si génn mu ne maa haadi zulumaat quelles sont ces ténèbres lëndëm lëndëm ñooy yooyu ñooy ñooy yan ashirk billah nga wot nga wutal yàlla ndende moroom waaw shirk billah ndax yaa wax ne laa ilaha illa waxdahu la sharika lahu lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir yaa ne benn yàlla rekk samp amul kenn ku ñu koy boole moom nguur gi mooy jara sant mooy mooy dundal mooy rey te lépp la man loolu déjà dalay former yow si xel dal yoo xam nga ne ki la bind kenn la moom moo mën lépp mooy dundal mooy rey sexel day dal bon doo ko booleeg keneen doo ko booleeg leneen man nga nag foog nag keneen di ñaan waaye ñaan la ma lay ñaanal yàlla kay nangu waaye fonk fonk fonk ko fonk loolu aussi ak jaamu yàlla ndax mag magum jullit kilifa jullit da nga koy fonk da nga ne na mag ñi yërëm xale yi xale yi nañu wekk mag ñi yàlla lépp la mën waaye def ko partagé nag ah léegi boo nekk président de la nga bëgg accumuler lépp da ngay sonn da ngay ministre nangam fële gouverneur nangam fële fële mais pourtant lépp yaa ngi yilif mais yaa ngi koy contrôlé nag kon shirk billah wutale yàlla nawle bokk na ci lëndëm lëndëm yi les beneen bi al kufru mécréance weddi weddi sakk jëf sakk jëf mooy weddi ma defal la nga ne defal la ma dara sakk ko sama jëf da nga weddi yàlla ne wa kayfa takfuruna billah wa kuntum amwaatan fa ahyaakum summa yumitukum su ma suma yuhyikum suma ilayhi turja'un allahu akbar waaye yéen mel ni yàlla dafa mel ni ku waaru sax ci sooxen waaye yéen nan ngeen di weddee yàlla nan ngeen di sëkk jëfi yàlla nan ngeen sëkk nan ngeen sëkk jëfi yàlla te yéen da dee woon ma bind leen ci lu dee si lu dee ngeen juddoo lu dee si ngeen juddoo ndax nit ki ba lay juddu ñaari koy séq góor ak jigéen te góor ak jigéen fa ngi lekk ba suur lu muy lekk jën mbaa yàpp mbaa leen leen jën bi nga ko laat lekk deewul yàpp bi nga ko laat lekk deewul loolu dee nag si yàlla seen la binde kon ma dundal leen si rëy leen si dundalaat leen si te si man ngeen dellu si bon nan ngay sakki sakki sakki sama jëf fekk lu dee ma dund ba nga nekk nit nga gis gis leneen waa gis keneen bàyyi ma loolu mënta nekk kay fa takkurun nan ngeen di nan ngeen di sakki sakki sakki jëf foofu dañ koy jàngale aussi ne nit ki du sakki jëfu kenn boo nekkee nit mu di di di jëfal wax ko di ko ñaanal yàlla waaye bu bu sëkk jëfam mukk léegi nag nañu seet ay bii ak dund gi ñu dund si réew mi ni ñuy ni ñuy weddee jëf jëf yi leen jëfal alxuraan du benn jamono rek c'est toute une vie tous les temps dans l'espace ñetteel bi lëndëm lëndëm yi alxasad keñaan mu ne keñaan moom li ci yéen wax salu dafa doy sëkk waaye xadisam bi mat na bàyyi xel mu ne wala taxaasadu bu leen di añaanante bu leen di añaanante bu leen di añaanante koor jiw nag fexe nag loolu mu denc ci yow ndax da ngeen di regroupé dali ba géew di baax baax lu baax ba baax baax baax lu baax am na solo nag dagan na ngay baax baax lu ba baax jéem jéem mooy tax amun yonent bi ne bu leen di añaanante wala taqaatau bu leen dog dog dogante wala tadaabaru bu leen di wante ay gannaaw wala tanaajasu bu leen di yë bu leen di yëdunte xoolal xadis bi ni mu neexee ak dund gi ñuy dund léegi actuellement ci réew mi dugal sa morom waxal ko lu dëgg daa mel ni métier te yonent bi waxoon lii depuis septième siècle kon l'islam dafa raw ñëpp dafa dafa dafa raw toutes de doctrines lu waaye mën a wax rek mu ngi si waaye dima di mën tere alxuraan tere tere bu yàgg lu bu yàgg alxasad yaakulul qalba kama taakulu naar alxatab sadaq rasulullah mu ne kañaan mu ñu ne bu doon décrire euh, méfe yi kañaan am mu ne kañaan day lakk xol day lakk jëf ni nga xam ni noonu la matt noonu la ay xal di lakke matt ku bon ku bëgg ku bëgg sa jëf du lakk bul añaan ndax ku jël juuram matt camion matt duus ay xal bu yàggee lépp takk kon bu fekkee ne da am tey añaan léegi nga ñàkk li bi lu wax dëgg la yàlla moo lu mu wax dëgg la du wax si bànneex ba kenn lu mu wax maa ko wax te seen ko toppee mën ngeen topp kon kañaan bokk na si lëndëm lëndëm yi kon koor yi ñëw na nañu baax baax baaxlu ndax ka yaa ngi dañ c'est le beneen bi alxiyaana wor wor trahison ah yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu laa taxunu llaha wa rasulahu fa taxunu amaanatikum ay eh waay ñi ma choisir jël ma tànn ma gëm allahu akbar bu leen war yàlla su ngeen waree yàlla ngeen warante ngeen warante day yomb boo ñëwee si làmb ka fa gën a mën a bëri nga daan ka da nga daan ñëwee si làmb ka ñëpp ragal nga daan ka di nga daan ñëpp bis bis doo doo ci doo doo ragal da nga daan daan mbër bi ku ñëw nga daan kon yàlla ne yéen ñi gëm bu leen war yàlla bon ngeen warante day yomb seen biir juróomeel bi ak lu xaraam lekk lu araam bokkul ci lëndëm lëndëm lëndëm yi surbul xaraam naan lu araam lu mel ni sàngara drogue mbaa boon yàmba yooyu yëpp dafay leen dafay leen dëbal parce sa nit lu tax yàlla mu ne yaa ayuha alladina amanu innama al xamru wal maysir wal ansaab wal azlaam rijsun min amali sheytaan fajtanibuuhu laalakum tuflixuun kon nag yàlla ngi ànd ak tous au courant yéen ñi gëm na ngeen xam ne sàngara ak carte ak bu man ak samp yeeg yoon bu man doon la moytu leen ko baax le mu mel ni ne daf daf daf yooyu li ñu def nee na min am min am seytaan liggéey seytaan la nu xool seytaan lan la bëgg mu ne innama yuridu seytaan ay yuqa baynakum al adawata wal bagda fi l xamri wal maysir wa yasuddukum an zikrillahi wa an salaat fa hal antum muntahun ah seytaan moom mu ne li seytaane boobu lu mu lu mu namb si yéen fexe ba créer hostilité seen diggante ak noonu seen diggante ak noonu ak mbañante mu mu jaar jaar ko ci sàngara mbaa mu jaar ko ci carte te non seulement day fex ba doot ba doota tudd yàlla te yonent ne yonent ne saw sam kiy tudd yàlla ak ki tudd yàlla ni ñu koy melal ni ki ak ki dund <laughs> kon yooyu bokk na si li nga xam ni ay lëndëm lëndëm la waaye nag ba tey mu ne waa anis salaati non seulement day tax doo doo tudd yàlla mais day fex dootu julli faf waaw xel ant mun taxoon ndax ngeen lii duñ ko bàyyi loo xam day tax nga fàtt yàlla day indi noonu day tax dootu julli doo ko bàyyi yàlla andi na weer woo xam ne occasion nga nga nga bàyyi loolu weer wi de tax boo daan naan nga góorgóor bàyyi naan gi boo daan carte bàyyi carte gi boo daan sàgganu bàyyi sàggante gi ba weer wi pendant trente jours te ñi nga xam ne seen sociologue na nañu bépp pratique boo bëgg ba bëgg bëgg bàyyi pendant vingt et un jours boo ko defee rek si successivement dañ ko bàyyi rawatina nag un mois réwli waaw beneen bi leneen leneen leneen aklu riba lekk riba namima rambaaj buxudu mbañeel ruutu fadli koo gis dafa ne yàqu génn koo gis rek dafa ne yàqu génn lekk alli jirim taxal góoru jul taxal góor deru jul bu jigéen ñaawal deru jullit bu jigéen tooñ ba tey léegi dem wane force doole ci ñi nga xam ne ni yàlla ni yilif doole joo xam ne ni c'est pas légiféré par la charia ñi am kàttan dal si ñi amul kàttan loolu ay lëb am kàttan rek dal si ñi amul kàttan nañ ko nañ ko moytu fornication jaxasoo góor jigéen te lawul dafay nag ay lëndëm lëndëm al kasibu wax lu dëgg fen nañ ko moytu dafa dafa dafa lëndëm buxlu nay lëndëm la nañ ko moytu xeqd rancœur dañ na ah, rancunier nañ ko moytu al kibriya rëy te rëy moom moo gën a bon si yëpp dañ ko moytu riya ngistal loolu loo def nag bu kenn wax rek nga nga mer nit ñi yow def nag pour yàlla te yàlla ne ne maa ngi yéen a ànd lu ngeen def gis naa ko sama loo def ñu nañ ko dégg ah bon di ne nañ nañ nañ xool suñ suñ suñ xew yi léegi ku ñëw taaj ku taaj booli booli booli bi ceeb di tagg ceeb bi di ko tagg di ko tagg di ko tagg ba ba yàgg rek ceeb bi naan ceeb bi xam naa laa doy na nag da ko yëg nag am nga la doy na tagg bi nag doy na <laughs> maa ngi jël mille franc tagg mille franc yi dafa ne fukki junni ngeen di tagg tagg tagg ba yegg nag am nga la jox ñaari téeméer yi ah, bon nag mu tagg xaalis jaru ko nag suxla ya re re re xeeb nit te yàlla na ñëpp yem waaw ñëpp yem ci ci ci njaamu waaye ku gën a farlu nag fa la fa ne. ak usurpation des biens braquage bi am ci àdduna bi dafa aram rachwa corruption dafa nekk lënëm lënëm Alioune Badara waaye yii bu fekkee mooy lënëm lënëm bi nañ ko xool par ni xool nag àdduna bi ni muy doxee yàlla nag yërëm àdduna bi yëpp wàcc na koor na na ngeen defarwaat na ngeen fóotuwaat fóotuwaat leen fóotuwaat leen fóotuwaat leen yéen laa tumpoo yéen xeetu sayyiduna Muhammad sallam jox ajjuma yi jox alxuraan jox leen prophète bi jox leen alxames altine jox leen zakat jox lépp neen du ngeen toppee sama su sama ngóor si baaxle waaw andi nañu weer woo xam ne def c'est pour rectifier noonu noonu defaruwaat mbokk yi noonu defarwaat noonu defarwaat yàlla na yàlla wërsëg nu ma defarwaat te yàlla nangoon na soo defarwaat kon nag ku wax lëndëm lëndëm wax wax leer leer <laughs> ndax ay bi ne danañ di jële ci lëndëm lëndëm yóbbu leen ci leer leer bon leer leer yi mooy ban al imaanu billah ma huwa hada nuur quelle mu ne al imaanu billah gëm yàlla gëm yàlla dëgg leer la beneen bi assalaam paix jàmm leer la asalaamualeykum yàlla nga am jàmm koo ko wax bu amee xel jot la bañ mukk al amnu sécurité leer la te réew bi ñu ngi xeex toujours pour na am sécurité ataatu nangoo topp nangoo topp yàlla nangoo topp yàlla si li mu la sante leer la bi Alexandre bienfaisance overprix def lu baax Alexandre def lu baax leer la leer la waaye nag ànd na fi yàlla ne na ngeen jàppalante di jàppalante te loolu boo gën a yaatu si réew mi nag fekk loo xam ne indi noonu si kër nga wax sa ba ba ba sa baat doon ngir ngir noonu ngir ah, loo ci séntu lu ñu la jox ëllëg lu tee ni nga sonne ci lu ban ba lu boon am nga sonne ko si lu baax kon mbokk yi Euh, moom noonu la tamit jumalante am quiétude dëggu muñ lewet matal kóllëre màndu baale tedd xam-xam ragal yàlla lekk lu lew naan lu lew am reconnaissance teralaate am yërmande yii mooy leer yi nga xam ni boo koy nit amee jeex na kon nag mbokk yi nu ngi bëgg agsi ci óor bu njëkk bi nu ngi siyaar ñëpp nag nu ngi siyaar bu baax a baax a baax ki bàyyi xadra aba aba sibu di siyaar waa kër njabootu bàyyi Abdoulaye Diom te Yoff yor di siyaar bu baax a baax a baax docteur Mbeng docteur Dramé docteur Diaw docteur Anne docteur Raketu Ñang Maymuna Seck euh, di docteur di di siyaar tous ces docteurs yéen a ngi leen defal tawféex di di siyaar nag docteur Papa Diouf docteur sans sans frontière euh, di siyaar groupe jàppoo gore di siyaar nag bu baax euh, que que waa sur gi waa sur service sur yëpp sur yëpp ñu ngi di siyaar di leen ñaan bu baax a baax yal na yàlla gën a ak déggoo gërëm naa leen lool yëg naa leen nag lool waaye nag mbir gërëm gi nag dama koy bal ci biir Sud FM bàyyi ma bàyyi war leen directeur yàlla ak yàlla gën a teel yan bi mu ngi ak déggoo ak ñi muy lif bu baax a baax a baax ah di ndokkeel nag gër disque religieux ba Alioune Baye le grand le grand combattant macha allah euh, ku ne xam na taxawaayam ci euh, ci wàllu diine Alioune Sall Alioune Sall kazalika ne xam na taxawaayam ci wàllu diine Mbacké Sylla kazalika kon ñii mar nañu bàyyi xel ak suñu mbokk yenn nga xam ne ñu ci rajo rajo yenn yi di wasaal lislaam ndax yoon bi ne ñi gëm yam yi yàlla yëpp ay mbokk lañu moo rajo nekk Sénégal yëpp ku nekk yaa ngi wasaal diine lislaam ku ñuy jox ab yar nag te kay joxuñu ko yow miy jox ab yar ñu dumale da ngaa da ngaa da ngaa da ngaa sàggan jullit bi tey nga jox yar ki jox joxuñu ko ab yar ne boo sàggane ba mu nangu yar bi dumale si nag da nga kon nag ñoom ñu ngi xeex bu baax a baax ñu ngi leen bu baax a baax euh, di gërëm nag di nuyu El Hadj Doudou Ndoye de quartier El Hadj Lata Sam Dawur Dawur Dawur euh, Diop sa Misra di nuyu waa yi gépp nag. penc bari yeeg jàkk yeeg imaam yi yëpp ñu ngi leen di bàyyiwu ne kenn kenn njaboot gi itam ñu ngi leen nuyu ñu ngi déglu nu nuyu boo xam ne ñaan jàmm ak toofeeg déggoo di nuyu bay amadi bay amadi Seck waaye nag fàttewuñu bu baax a baax a baax a baax euh, njabootu ba àlla Ousmane Gueye euh, bu ngi tàgg ak Ousmane Gueye bu sawe bi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu nag bu baax Idrissa Gueye bu bari bu bari ji boot di nuyu njaboot sa sa sëñ Omar Gueye njaboot sëñ sa Seck njaboot yi kii bi yëpp ñu ngi leen di di nuyu carte Njaañ Njaañ nguy dagg ak yëpp Njolma nag sëñ ci bi yëpp ñu ngi leen nuyu eh, di nuyu umu ci woon bu baax a baax ci kaw la di nuyu Daara Aycha Mbodj bu baax a baax di Cheikh Tidiane Seck jibo kazalika eh, ki nga xamee ni mooy nekkoon nag ci technique bi ba ngeen di koy dégg nii. moo di Alioune Badara Socé euh, yal na yàlla dafa ko tawféex euh, di nuyu nag sama sama technicien yëpp nag mu di Alioune Alassane Wade Thion Pablay ñoom c'est des grands techniciens yal na yàlla leen defal tawféex bu baax a baax a baax ak le a le personnel ensemble nag d' abord tout le personnel maa ngi maa ngi maa ngi leen nuyu baax a baax seen seen mbokk Amar Seck euh, waxtaan ak yéen si Ramadan bi andi leen tey l'impact de la foi. asalaamualeykum wa rahmatulah